asalaamaaleykum mbokk internet Saint-Louis TV asalaamaaleykum yéen ñi safoo lii di chaîne Saint-Louis bi euh, tey dañ amoon tey dañ am kontaante bu mag di dalal ki nga xamante ni mooy Mamadou Moustapha Kane nekk assistant à la direction euh, du gros soir

Oui, donc, euh, je, et je suis le président du mouvement dénommé Jeunesse Action Républicaine. Je suis, je suis, tamit mon cadre professionnel tamit nekk assistant à la direction du centre régional des œuvres universitaires au Saint-Louis. ok aujourd'hui, jii nii sa jaar-jaar bu ñu ci mënoon wax tey Modou Moustapha Kane tey euh, ci à Saint-Louis tuuti jaar-jaar yi nga xam ne def nga ko ci lu dans le social wala lu le ci euh, développement tey la nga ñu mën a wax. Je xam nga revenir parce que ce mouvement là a été créé depuis le 13 janvier 2013 à la maison de l'île 2013 à 2021 c'est beaucoup de temps bi nga à chaque fois manifestation bu manifestation politique ou économique le mouvement jeunesse action républicaine bi nga man président bi am na partition bi nga donc def nañu tamit ay activités sociales yo xamante ni euh, yu si bëri def nañu ci période Covid bi tamit def nañ ci ay sensibilisation def nañ ci ay don de masque tout ça comme ni ko ñëpp defee. ok mais ñu gis ni mouvement yi dañoo bëri trop à Saint-Louis. Mhm. tey Saint-Louis y a plus de 4000 mouvements ou 5000 mouvements tay te mouvement yépp derrière du am dara. Il y a 4 à 5 personnes qui ont fait wala benn tout nit rek mouvement est-ce que un mouvement jeunesse action républicaine euh, derrière un nombre. Wow, xam nga association d'une manière générale a un nombre bu koy constituer ñun nous dee acquis sur ce nombre nous avons acquis boobu. yéen c'est statut ngeen am. Nous avons statut c'est dignement reconnu nous sommes un mouvement légal Nous avons tous nos documents administratifs donc nous constituer anam bi nga mouvement qui pour constituer

am na nga ci nga nekk ci donc ñun dañu créé un mouvement pour soutenir le président Macky Sall sur sa vision éclairée bi nga non dóor xam nga dóor parce que à chaque fois yéen si camp présidentiel bi ngeen di xam nga man j'aime pas utiliser ces mots xam nga lu parce que xam nga léegi réew mi sax booy xool d'une manière générale dafa commencé yàqu parce que même si dee da ngay wax lu baax dañuy wax ni kii day dóor alors que ni euh, c'est pas ça la République la République, c'est de reconnaître le leadership des uns et des autres. La République, moi, pour défendre tu le laisses défendre ses idées c'est ça qui constitue une république mais vous à peut-être avec votre manière je ne sais pas, peut-être même fait' qu'un vous le considérez comme mouvement Nous, euh, nous, nekkuñu fi pour d'or, parce que vous faites contenu d'or pendant six ans il y a amul kenn ki nga xamanteni ñew à soutien par rapport à nos activités toujours le mouvement jeunesse action républicaine reste constant sur ses activités sociales yi nga xamni ñun débrouiller sur nos propres moyens pour pour mener nos activités donc euh, amul yooyu quoi mais derrière tout ça tay mouvement bi mouvement social la wala politique non xam mouvement social mouvement on peut pas dire un mouvement social mouvement xam nga même politique politique dafa ànd ak social mono wax ni damay politique je ne parle que de la politique ñun nous faisons de la politique et du social voilà. ñaar yëpp ngeen ni ngeen ni defando quoi dañuy defando oui tey jii nii euh, tey ban rapport nga ak ki di le maire de la commune de Saint-Louis tay ban rapport ngeen am. waaw maire commune bu Saint-Louis c'est notre grand frère comme yow comme man il est né ici à Saint-Louis Saint-Louis c'est une petite ville donc. dem siège ba dem du question rocceeku dem na fa à maintes reprises du question loolu du ma ci rocceeku dem na ci fa à maintes mais si ça su nga xamanteni warna am manifestation par exemple bu xew lu ci mel comme par exemple élection présidentielle 2019 yi dama fa doon dem de tout le temps euh, j'étais aux côtés du président Macky Sall donc il était le mandataire du président euh, donc c'était là-bas son siège donc j'y allais tous les jours donc euh, j'espère que les rapports nous avons parlé à haute voix que nous soutenons le président Macky Sall par exemple moi, président Macky Sall peut-être bu nous mënul ci tamit euh, mais après l'élection, je crois que mouvement après l'élection, nous est-ce que tu jox ñu ko ba di ak chaque chose en son temps élection présidentielle bi mu nous ñun constituer sur le mouvement c'est de soutenir le président Macky Sall notre interlocuteur c'est le président Macky Sall donc euh, bu ñu élection 2019 tamit élection c'est bien avant 2019 nous avons nañ fi ay conférence euh, conférence sur le référendum pour décortiquer aux populations les 15 points de réforme donc avec des étudiants doctorants en droit mobiliser beaucoup de jeunes c'était en 2017 2019 euh, le président Macky Sall on était allé auprès de lui donc depuis Bobolier on attend toujours mais aujourd'hui, vous euh, euh, en tant qu'assistante. Euh, à la direction du cours tey jii nii la wax si jafe-jafe yooyu par rapport yéen ak étudiants non en tant que mon assistant assistant du cours kooku moom beneen volé. la kooku c'est volet professionnel la. volet professionnel. non La, laay dikkaat parce que aussi tamit foofu dafa politique. non amul politique non si. parce que dégg naa ñu euh, actuellement. ci ay ci ay euh, weew bëy laa ko fore ñu ne président mi ngi un remplaçant du du directeur de course est-ce que consulté nan la <laughs> non gas oui mon président a mis 7 pour un directeur de course pour 7 l'année. Un non un remplaçant pour lan. ban problème à am université. non directeur bi ñëpp xam nañ mission Bonne mission la faillir. mais mission mais mais yow gas est-ce que tu es né à Saint-Louis sincèrement. yow est-ce que est-ce que tu connais beaucoup de monde à Saint-Louis bien sûr mais dis nga beaucoup de jeunes qui xam ne à l'université non non mais c'est ça c'est ça problème Les étudiants yi am ak yi nga xam ne directeur cours non mais clientèle politique am tey jii la jël euh, la jël insérer leen biir cours non non non de clientèle politique xam nga les gens il faut pas da ngay nit da ngay de juste li nga tu ni mooy affaire aux clientèle politique peut-être le directeur du de dafa politique président Macky Sall xam y dénk ko institution donc c'est des jeunes des jeunes sénégalais à part les partis politiques des jeunes sénégalais comme toi comme moi, des citoyens des politiques, politique c'est des citoyens c'est des jeunes comme nous donc, sincèrement je ne vois pas de mal si on les prend les insère quelque part je ne vois pas de mal même les étudiants étudiants c'est le développement et c'est ça le développement donner aux gens de l'emploi donc si faites ni dañuy am nit euh, offrir aux jeunes de notre ville de l'emploi donc on ne peut pas quand s'en remercier Dieu donc c'est ça. Euh, tu préfères tu préfères ben militant ak ko xamante ni il est diplômé. Hmm. yow tu préfères jël militant bi. bàyyi ki nga ni il est diplômé. que veut dire militant ak un diplômé. Il y a des militants diplômés. yaana a. mais aussi tamit amna ño ñoo tay ni hmm. ay euh, yenn poste yi ñoom ñoo ko a mérité mais da koy xagn di y a plus méritant ici au Sénégal que quelqu'un d'autre. non non non mais non non non non Moi, je suis pas d'accord sur ce sujet sincèrement xam nga lu hmm. parce que lolu mi ngi lay yóbbu si ñàkk gëm sa bopp. xam nga bu fekkee tu tu dis que ni. Il y a quelqu'un de plus méritant que moi c'est telle chose faut la ñàkk gëm sa bopp commencer. mais bu ñu nee tey jii poste bi nii. Hmm. Euh, tey jii poste bi. Hmm. Euh, genre ku am masseur lan koy jox. mais yo, d'habitude d'habitude bu ñu koy joxee si ay appel d'offre lañ koy def si ay lancement appel d'offre te nit ñi dañuy def seen i ay documents formulé joxe. ñu jël leen yow instant nii ah. fonctionnement CROUS yow tu es tu es pour. non mais je suis pour pourquoi ne pas être pour. xam nga lu tax non sincèrement parlant man hmm. je suis au CROUS depuis 2003 je connais l'histoire de l'université. Université, milliers de contestations. Là. Donc, euh, le directeur, euh, euh le directeur du Crous, tamit bimu fay ñew yeen ñi ñep xam ngeen ci anam yu mu fa ñewé Crous amoon na ay problème ñu mu ñew ñu indi ko fa donc mom bimu fa ñewé ak légui yaakaar naa ni mi ngi def deux ans wala trois ans donc depuis bobu légui

dëkk ak dëkk ñëw indi ko fii joxo ko bursam muy muy wër di yalwaan lu mu lekk. waaw sincèrement xam nga man euh, man je ne suis qu'un agent du CROUS. moo tax peut-être euh, affaire course du ma ci bëgg sore trop. mais peut-être am naa beneen posture boo dul mën naa ci waxee sama posture président mouvement jeunesse action républicaine mais quand même man je vois euh, position bi nga xamante ni que ni moom la directeur u CROUS bi jëloon que ni nañu arrêté GST yi position bu patriotique la

parce que moi tout monde, parce que bu faire ni pour poche am lay on ne sait le laisser aller mais dafa ni askan bi kaay leen ñu sàmmal leen suñu alal bi ñu ba étudiants yi nga xam ne ngi université di la leen war ñu jof leen amis. Donc, est bien réfléchi non bien réfléchi amul c'est plus que bien réfléchi xam nga le fait d'être patriote. moi, tax ngay jël position mais si c'est le laisser aller comme beaucoup beaucoup de Sénégalais pensent mooy que ni nanu maslaa ground. et c'est ça qui fait retarder nos pays

mandat au maire ici au Sénégal yëpp donc nous ñu wax spécificité bi rek ni Saint-Louis la donc euh, Saint-Louis tamit man sincèrement parlant position c'est ce ma ci xalaat peut-être euh, du wax ni le maire bi fi nekk defu fi dara loolu mënu parce que tamit euh, quoi qu'on puisse dire nous avons ni réalisation nous avons une commune bu Saint-Louis donc nous ne faisons qu'en quand lui féliciter là-dessus. ok quand tey jii yow entre euh, entre bien A bien et meilleur lan nga koy jox. A bien laa koy jox. A bien nga koy jox ok quand tey jii nii gis nga ni maire de Saint-Louis fayurul li lui rendre ne mission non il n'a pas failli à sa mission. pourquoi dire il a failli à sa mission. mais mais tey gis na ni Saint-Louis bokk na si dëkk yi gën a salté Sénégal tey gis nañ Saint-Louis dëkk yi nga xamante yu gëna a reculé ci Sénégal pourquoi yow nga ne durant les 5 ans mom euh, boo ko doon noté da koy noté. non xam nga mëno wax ni Saint-Louis bokk na ci dëkk yu sal gëna a salté ci Sénégal. mais nit ñi ko wax chiffre yak wax aussi. chiffre yan dafa ya des études. non mais amna na études yu si gars yi. études yi non non non yooyu amul non non aussi tamit au delà de lolu nit ñi li ñu gis xam nañ ni Saint-Louis dafa salté. non Saint-Louis dafa salté xam nga lolu waxin la rek peut-être que ni di nga jaar ci yenn secteur yi mais yow fi nga toog ni tu vois pas d'ordure donc mon wax ni Saint-Louis dafa salté population toujours état toujours dina am am du donc donc on ne peut pas Saint-Louis n'est pas une ville sale Je je suis pas d'accord peut-être que ni avons ay qui ont des quelque part ñu ay poubelles nit ñi diko ba mu yooyu yëpp am na mais Saint-Louis n'est pas une ville ville sale wala quelque part nga fiy cité ay parti ni fii dafa xaw salté mais c'est pas une ville sale quand même. ok Yo, tey jii nii euh, li nga xamante ni élection maire yi tey yow n'anga nga koy waajee da ngay dem wala da ngay soutenir. Wa, bëgg naa dem wala bu ma mënul dem ma soutenir tamit. yow pare nga tey pour déposer ce candidature. ah pourquoi pas pourquoi pas. avec avec bonne coalition. ah ak ñi nga xamante ni bëgg naa ak ñoom parce que xam nga élection locale kenn mënugu la wax ni la quelle telle date la xam nga bëri na ñoo xam ne def nañu seen déclaration à la veille de l'élection 2019 ba léegi ke déggoo déggoo léegi ñun ni élection am na donc ñun tamit euh, nous attendons am nañu suñu stratégie bu ñu bëgg a taxawee boo xam ne bu élection jotee dinañu mëne suñu élection. ñu est ce que est ce que yaa ngi koy waajal maa ngi koy waajal bu baax mais élection ñep xam nañ ay moyens kay def est-ce que tay moy taxaw na. wa ay moyens le fi ay moyens le mais tamit ak appui population bi xam nga bo né moyen rek que ni ku amul moyen du nek maire Saint-Louis kon ñun ñep ñu serons de côté mais ma ngi xaar euh, loxol Saint-Louisien yi que ñu jappalé pour que ma jël maire Saint-Louis. mais naka la ci dara tey gisuñu la ci tey gisuñu la ci campagne gisuñu la ci tapage réseaux sociaux yi. non man je ne fais pas de tapage. man je fais un est-ce que xam na la. Saint xam nga ma yow. y a beaucoup de Saint-Louisiens qui me connaissent. mais ñun ñoo bokk tey jii nii boo xoolee mbalka mi ñuy naanee. waaw mais est-ce que Saint-Louisien bi xam ne moo gën a reculer tey à Saint-Louis est-ce que tey. ñëpp tout le monde connaît Mouhamadou Moustapha Kane président du mouvement Jeunesse Action Républicaine à Saint-Louis parce que terrain politique bi tamit du léegi laa ci dugg waaw dugg ci depuis longtemps, donc manque depuis des dizaines d'années. Donc yaakaar naa ni j'ai pas besoin de faire une adresse politique. mais tey jii nii yow tey euh, tey boo doon dem tey li nga xamante élection maire munoo dem ci camp wu ki nga le euh, camp républicain yi camp président de la République parce que am nañ une coalition Benno Bokk Yaakaar kon tey jii nii yow tey ci ban camp nga yow nga jàpp ni tey jii yow camp boobu pare pour soutenir la bu dee Abba Mbaye la je ne crois pas. Hmm. bu dee Sonko je ne crois pas bu dee Khalifa Sall aussi je ne crois pas.

exact yow yaa ngi wax sax ni coalition Benno Bokk Bonn Bokk Yaakaar am cette coalition mais kan moo la wax ni la Benno Bokk Yaakaar coalition lay demee élection locale ah, xam nga non c'est pas encore déterminé on ne peut pas parler du futur loo xam surtout en politique donc ñun dañu camper ci suñu position Moi cette mairie cette mairie de Saint-Louis là amul ku ko bëgg gën bëgg position bu ñu ci pour nek fa tamit daañ ko pour nek à la tête de la commune de Saint-Louis ok yow tey jii entre mairie et ak conseil départemental bi tey non nous pour l'instant on vise euh, la commune pour l'instant, sincèrement ok euh, tey ni, nii euh, Mamadou Moustapha nekk ki nga xamante ni moom mooy président mouvement jeunesse républicaine euh, ici à Saint-Louis nek ko xamante ni ku déterminé la ku engagé wu aussi nek ko xamante ni ku ñu Pastef ki nga xamante ni liggéeyam na ak Pastef ba université ñi fay dem ñu bari sax dañ koy ragné toujours si li nga xamante ni moom protocole beeg yoy non tey jii nii bu ñu ñëwee ci actualité tey jii actualité li nga xamante ni Sénégal muy ciowul Sonko bi tay la nga ñu mun wax ci ciowul yi complot la wala Sonko mo def non je ne dirais pas que ni complot parce que man sax ci wax parce que xam nga euh, mi justice comme ñun ko mi assemblée nationale en tant que citoyen tay am ah, analyse waaw analyse ci que nous sommes dans une république Ousmane Sonko c'est un sénégalais comme tout autre sénégalais donc bu dem ay salon de massage yooyu man sincèrement ça ne me regarde pas. Oui. da dem salon de massage. man peut-être xaw man ma bu sax dem fa si j'ai le sentiment ni dama fa bëgg dem. Uh-huh. mën fa dem parce que je ne vois pas de jeunes. non yooyu yëpp xam nga. bu nu non non je te dis une chose. même mairie Saint-Louis yeeg fini fini ñi dem salon de massage bëri peut-être que ni euh, am na lu xew Ousmane Sonko ak salon de massage coowal salon de massage jóg bénéfice d'un salon de massage. Donc, je ne, vois pas, je ne vois pas de mal que mu dem salon de massage mais tamit dafa am loo xam si tu aspires booy aspirer nekk au plus haut institution de la république daf da ngay da ngay fàgganiku sa parce que man man je ne dirais pas que ni je man j'ai pas de ma am yenn langage que ni moom moo def wala mom def parce que dara wóoruma ci suma waxante ak sama ak sama borom dara wóoruma ci moy Ousmane Sonko c'est un citoyen sénégalais c'est un président de mouvement politique passif, il c'est un adversaire politique peut-être mais c'est pas un ennemi

saint euh, surtout si tourisme ce na ci lu Nous moy que ni ñun on a beaucoup d'amis antiquaires peut-être si ville bi la di di touristes ñuy ñu leen di artistes yi ku si nekk gis nañu Covid bi ak mesures nga pour euh, que euh, yooyu yëpp yu si

insalubrité dinañ ci def effort yuñ ci mëna def bu fekkente ni mbalit hein, mom dinañ ci def luñ ci mëna def dinañ ko ci def parce que aussi insalubrité dafa ànd ak accompagnement wu population yi parce que population yi bu fekkente dañ leen tegal fenn ni leen fii la ñu war tuur mbalit il faut que ñëpp bu ñu defee dajalee seen mbalit ñu jël tout tuur ko fañ fa war a tuur mais bu fekkente ni ku nekk fu waay jot sànni donc loolu tamit ça va être difficile pour commune mu gérer loolu ni mel Qu'est-ce que côté euh, ah, et tout dans stade maître euh, euh, stade fonctionnel hein? donc nous avons nous fay dem jouer peut-être tamit stade maître Babacar de et stade Wembley peut-être tamit commune bi là-bas tamit ñi ngi wax que nous wax nit ñi lañ lañ fay def au juste parce que aussi clôturer ben espace de jeunes rek clôturer ken xamul li nga fay def yoyu tamit c'est manque d'information bobu il ne faut pas ñu ñu koy dund ak population bi dal nanu wax au juste espace public yi nga xam dañ koy jël di clôturer di xam nga ñu wax nit ñi lañ lañ fay def ñu wax c'est des tel ou tel travaux gérés par tel ou tel entreprise bu ko defee nit ñi bañ ci am ay lëndëm lëndëm dal ah, mon dernier mot, c'est de, de euh, remercier encore si invitation bi invité C'est une émission c'est Saint-Louis TV et votre équipe Je euh, encourage tamit ci que mu nekk équilibré vous parce que vous êtes acteur de presse donc man ma leen ciy soutenir ngeen xam ni vous êtes des jeunes vous avez l'avenir devant vous donc ngeen ngeen nekk ci li ngeen nekk daal ngeen gëm li ngeen gëm tamit yàlla na leen si fekk si xam nga donc c'est ça sinon tamit maa ngi nuyu les membres du mouvement jeunesse action républicaine hein, donc di leen nuyu ñoom ñëpp di leen encourager si taxawaay bi nga xam ne ñu ngi ko taxaw depuis boobu ba léegi si mouvement bi ba nga xam ni euh, lépp lu mën a xew rek dinañu ci ràññee le mouvement jeunesse action républicaine donc euh, wasalaam

Le commercial le monétier, le monétier de donc on doit vous motiver donc pourquoi pas créer une grande chaîne de télévision Saint-Louis TV donc c'est ça l'avenir c'est ça donc il y a ci donc man de tout que ñaanal naa leen yàlla yéen ñi ko samp de yeggale leen donc l'avenir est devant vous il na a def kon euh, ñu bokku internet Saint-Louis TV ñuy jaajëfal ñëpp euh, ci suivre bi nga xamante ni yéen ngi doon suivre ci émission focus sur bi tey ñu doon dalal bi nga xamante ni muy Mamadou Moustapha Kane nekk euh, président jeunesse action républicaine nekk